daayira Muqaddamatul Xidma yëpp njiital sëriñ Xaafiya ci banqaas bi yore wàllu scientifique et culturel njiital sëriñ Abdou Lahat waa communication yi njiital sëriñ Abdou mi ñuy àndal liggéey bi di dellusiwaat ak yéen nag ginnaaw bër gi baalu ñu àq ñaan suñu borom boole ñu jéggal ñu ngi woon ak yéen eh, ci eh, tasawuru siqaar amoon nañ ci benn bunt bu njëkk bi doon wax ci imaan ak ñetti xaajam yëpp eh, bi imaan noppee nag comme ni ko alquran toftale rek mooy ni ko sëriñ bi toftalee wal muminuuna kullun amana billahi wa malaikatihi la ci wa kutubihi wa rusuli kon tey ñi ngi ànd ak yéen ci buntub eh, malaayika yi fii la tàmbalee faslun aji tàqale fil malaayikati ci malaayika yi alayhim wa yàlla nekk ci ñoom asalaatu xeewal wa salaamu ak mucc mu ne dog bi chapitre bi day wax ci malaayika yi yal yàlla julli te salmal ci ñoom yal yàlla dolli ci ñoom xeewal amal malaayika ndaal malaayika fal imaanu gëm bihim ci ñoom xoo moom a tasdiqu moo di dëggal wal ixaanu ak kóolute bi annahum naka ñoom malaayika ya kat laa sàkk déet sikki sàkk ne moo juudu ñuñ amal lañ suma topp maasumuuna ñu ñu musal lañ mina dunubi ci ay bàkkaar wa annahum naka ñoom malaayika ya laa yataxawatuna den ñuy dem àll wala yabuluna den ñuy sanguwaay mu taxaruna ñu ñu laabal lañ eh, mu ne bunt bi day jàngale ci gëm malaayika yi eh, ba njëkk ci liñ war a gëm ci ñoom mooy ñu dëggal ne malaayika yi ñu am lañ ñu existe lañ gëm googu nag nekk lu lu leer ci suñu biir mooy lu ñu wóolu ne lii moom lu wér la bañ am genn sikk sikki ci amul malaayika yi mooy mooy mooy poñ bu njëkk bi ci pas-pas bi nga xam ne dañ ko war a pas ci ñoom ñaareel ba ñu ñu ñu ñu ñu pas ci ñoom ne malaayika yi kat suñ borom da leen a musal ci bàkkaar dana ko wax léegi ci kanam maanaam ñoom mënuñoo def bàkkaar dañ leen a bind ci rek wa yafxaluuna maa yumruun laa yaxsuuna allaha ma amarahum wa ba tey bokk na ci pas-pas yi ñu war a am ci ñoom ñu gëm ne malaayika yi kat ñu mën a dem àll euh, duñu ndax ku dul lekk doo mën a dem àll bokk yi ñaa di gëm ci ñoom ne malaayika yi ba tey duñu duñu duñu sanguwaay duñu mën a duñu tuur ndox yàlla da leen na laabal ci xeet sobe yooyu laysa deet malaayikul ilaahi malaayika buur ba yaakulu na ñuy lekk alayhimoo yàlla nekk ci ñoom asalaamu mucc soo déet ñoom yasraboo na ñuy naan ba li fi nekkay hum ñoom ibaadun ay jaam lañ mukramoon yu ñuy teral sarmadan teraanga gi sax ba faw wal kullu képp minum ci ñoom malaayika ya lee sa yax si déet muy mooy assamada kañ jublu te muy kilifa ga kooku mooy suñ boroom wal kullu képp képp yafaxalu day def alladi la nga xam ne xat umira digaleef na ko bii ca loolee waaw ah, mu ne malaayika yi eh, ba tey bokk na ci li ñu war a jàpp ci ñoom liñu ñu war a fas ci ñoom mooy ñoom duñu lekk war nañoo fas ci ñoom it ne ñoom ñu naan war nañoo li ñu war a jàpp ci ñoom daal mooy ay jaam la yoo xam ne yàlla da leen a terale xeeti sobe yooyu xeeti manqué manqué wàññeeku yooyu moom lu jëm ci lekk ak dem àll ak naan ak tur ndox yooyu yàlla da leen caa laabal ñu gëm it pas-pas yi ñu war a gëm ci ñoom it mooy dañoo war a dañ leen a war a jàppe ne ñoom it mënuñoo mooy suñu borom maanaam ku mu doon ci ñoom rek ya na ko yàlla bindee ca nañ ko programmé mooy topp ay ndigal waaye programme wuñ ci moom mooy yàlla moo tax mu ne ku mu doon ci ñoom la day def rek la ko yàlla digal waaye mënuñoo mooy yàlla mooy laa yaxsuuna allaha ma amarahum duñu mooy yàlla mukk ca lam leen digal wa yafaluuna maa yumaruun toujours it dañuy nekk ci di def lam leen digal rek mu tëjee nag bayit bi daal ne waxaadoo ñoom malaayika yi wammat nañ lii ñeel ma wammat nañ busra mbégte lii ñeel ma bi am nañ ko ànd gu kóolute loolu nag sëriñ bi bi muy taalif téere bi xam ngeen ne ci niveau bi mu tolloon euh, ca lay waxe toujours mu ne ñoom malaayika yooyu nag mbégte mii ma suñ borom jox te mu ànd ak kóolute ñooy ñi nga xam ne ñoom la ci ñoom la ko yàlla jaarale ñooy ñi ko andil na ko ñoom malaayika ya bind na leen rabbuhum seen borom albaaxi suñ borom mi di aji des min noori ci ak leer bilaa takk diiri ci lu nax-nax mu ne bokk na ci li ñu war a jàpp ci ñoom li ñu war a fas ci ñoom it dañoo war a gëm ne ñoom malaayika yi yàlla mi ngi leen binde ci leer gu set wicc goo xam ne eh, amul benn nax-nax bu ci am amul benn taq-taq bu am ci leer ga eh, tasbihu rabbihim tabba sàbbal seen boroom xoo moom ak asaraabu moo mooy naan nga taxdiisoo ak sellalam ataam moo di ñam wa laa tartaa boobu leen di sikki sàkk mu ne malaayika yi ba tey bokk na ci pas-pas yi ñu war a am ci ñoom mooy Euh, sàbbal gi ñuy sàbbal seen boroom mooy taxaw mooy taxawaay mooy taxaw comme taxawaayu naan ca ñoom sellal gi ñuy sellal sàbbal gi ñuy sàbbal seen boroom ba tey mooy taxaw taxawaayu ak ak ak lekk ci ñoom mu ne loolu nag lu leeral la boo xam loo xam ne bu leen ci am genn sikk ginnaaw bi waxee malaayika yi pare nag daal ciy teg li ci topp muy euh, euh, téere yi moom daal beneen buntu tuddee ko faslun aji tàqale fil kutubi ci téere yi azzamaawiya yi ko jóg asamaan kon ñaari kon ñetteelu bunt bi wal muminuuna kullun amana billahi ci lañ jiite woon waxoon nañ leen ne imaan juróom-benn xaaj la mooy imaanu billahi leeralal na ñett yi ci aju ba ci topp mooy imaanu bil malaayika yi leeral na pas-pas yi ñu war a am ci ñoom ñetteel bi kon mooy imaanu bil kutubi eh, bunt bi kon mi ngi tudd téere yi nga xam ne daa jóge asamaan téere yi nag li jibril mi ko daan andi wala malaayika yi ko daan andi Eh, daan jóge eh, jibril mi ko daan andi daan jóge ci asamaan di agsi moo tax ñu koy askanale asamaan imaanukum seenu gëm bil kutubi ca téere ya ak tasdiixu moo di dëggal bi annaha naka moom téere ya insaaluha ak wàcceyam xaqiiqun lu dëggu la wa annama ndaal la nga xam ne fiiha nekk na ca téere ya maa boolu seen xaqun ak dëgg dëggal yooyu nag naa la kon kooku am na alxulaa kawee nga ga waaw ah, mu ne ba ci njëkk ci pas-pas bi ñu war a am ci téere yi mooy niñ leen war a jàppe mooy dañoo war a dëggal ne téere yi eh, lu am la maanaam gëm ne téere téere yi suñu borom yi mu wàcce woon gëm ne loolu lu am la téere yi d'abord lu am la ñaareel ba it ñu gëm ne téere yi dañ ko wàccee mu jóge ci suñu borom eh, loolu it lu dëggu la ñetteel ba it ñu gëm ne lépp loo xam ne nekk na ci biir téere yi ñu bañ di gëm lii bàyyi lee waaye ñu gëm lépp ne lépp lu lu lu lu ak dëgg la goo xam ne mi ngi jóge ci suñu borom mu ne ñoom téere yooyu nag ak li nekkoon ci seen biir koo xam ne dëggal na leen eh, kaweek àdduna ak kaweek alaxira suñ borom man na koo jox adaduha seenub lim ñoom téere ya xaddun téeméer la ak ñeent danañ ci ñëwaat léegi wa yaa un ñu jël fukk ci téeméer ak ñeent yooyu waaw wala wa unsilat wàcceef na ya un fukk min ha ci téeméer ak ñeent yooyee xalaa adama ca sayidina adama ca sayidina adama fii ma sabat ca la sax noonu topp juróom fukki téere xalaa shisha ca shisha ibnihi may doomi sayidina adama suma laamun topp fanweeri téere xalaa idrisa ca ñu wàccee ko ci sayidina idris yaa un fukki téere xalal xilli ñu wàccee ko ci xarit bay sayidina ibrahim wii ci toftalo mu ne yi yi nga ne ñaareelu pas-pas bi ñu war a amaat ci téere yi mooy téere yi nga xam ne daa jóge ci suñu borom wàcc téeméeri téere la ñeent la mu lime ko nag ci limu xaddun booy lim abajada gi ñu jàng abajada hawaza eh, boo xoolee eh, daal moo ci tolloog eh, ñetteelu ñetteelu araf ñeenteelu araf abajada booy tolloog boo àggee fukk tàmbalee def fukk ñaar fukk muy continuer boo àggee ci xaaf mooy tombe ak téeméer wàññin woowu nag moom la jël ci xaddun gi daana kon te téere yi téeméeri téere la ak ñeent mu am ñaari xeeti gëm yuñ ko war a gëmit gëmu gëmu rafetal noonu rek ak gëm gëm goo xam ne dañoo war a faram fàcce yenn yi xam seeni tur téeméer yi moom da gëm ne ñooñu am nañ waaye kenn obligé wu la pour nga xam ni téeméer yooyu tudd ñeent yi nag mooy yi nga xam ne da nga leen war a gëm ba pare xam seeni tur xamit ci ñu wàccee téeméer yooyu nag nii lañu nii la ko suñ borom seddalee mooy fukki téere la masa wàccee ci sayyidina Adama jëlaat fukki jëreen juróom fukki téere wàccee ko ci yonente bi yàlla boobu ñu tuddee Siza ñu miine ko ci ñun soose eh, eh, jëlaat fanweeri téere wàccee ko ci sayyidina Idris eh, sayyidina Idris man mi ñu xam ci alquran waskuru fil kitaabi Idrisa innahu kaana siddiqan nabiyya jëlaat fukki téere wàccee ko ci xaritub na euh, suñu borom boobu ñuy tuddee na ibrahim kon téeméeri téere yi daal di mat ndax boo jëlee fukk tegaat ci euh, juróom fukk muy juróom benn fukk tegaat ci fanweer muy juróom-ñeent fukk tegaat ci fukk muy téeméer muy téeméer léegi nag mu des ñeent yi nga xam ne nag dañoo war xam seeni tur ak ci ñan lañ ko ñan lañ ko wàccee woon ñeent yooyu mooy yi muy bëgg a lim tawreet seen xadix tawaaxa làq na ko isa sayidna isa injiluha injil seen xadix tawaaxa làq na ko isa sayidna isa suma xawaa topp mu làq zaburaha sabur seen daawudu sayidna daawud ka waxta ka maxtawaa naka mu làqe furxaanaha furxaan seen muy alquran almahmudu kañ sant kay muhammad alayhim wa yàlla nekk ci ñoom yonente yooyu asalaatu xeewal wasalaamu ak mucc maaxabahum li fii mi ngi leen di sopp asalaamu suñ borom mi musalaa kon ba rabbul wara ba rabbul wara borom mi defee asalaamu kay muccaa kon ba waaw suñ borom mi nga xam ne dara muccal lañ ko ci lépp loo xam ne lu mën a eh, lu mën a jur ak wàññeeku la mu ne kon eh, foofu la buntu boobu yam ci gàttal laal Euh, ñetteelu poñ bi ñu war a gëm muy imaan ginnaaw bi nga xamee ne téere bi ñu ngi ko tënke ci sawaabit li ñu tuddee sawaabit diiniye yi moom la ci sëriñ bi indi di jiital toujours imaan bu noppee mu teg ci islaam bu toppee mu noppee mu tegaat ci ihsaan imaan bi ñu jiitaloon nag muy juróom-benn xaaj jàngoon nañ xaaj bu njëkk ba muy imaanu billaahi tey njëkkee nañ xaajub ñaareel bi muy euh, gëm gëm gëm malaayika yi xaajub ñetteel bi di gëm téere yi nag ci la ñuy yemandi ak yéen mooy bii ñu toll gëm téere yi di ñaari xeeti ñaari xaaj mooy yoo war a gëm xam seeni tur ak yi nga xam da nga leen war a gëm ca jërul nga seeni tur yi nga war a gëm ca doo xam see yi nga xam ne gëm gi pas-pas bi rek mooy nga danga leen war a gëm xam ne yu amoon la ci ñii lañ ko wàccee waaye tur yi nag euh, obligé wuñ la pour nga xam seeni tur yooyu mooy téeméer yu njëkk yi téeméer yu njëkk yi nag mu ne ginnaaw bi nga gëmee ne dëggal ne téere yi du dëggu la waaw euh, dëggal téere yi ba pare daal di dëggal ne dañ ko wàccee ba tey mu jóge ci suñ borom jaar ci malaayika yi ñëw gëmin ne lépp lu nekk ci téere yi lu dëgg lu dëggu la mooy limu téere yi téeméeri téere yooyu nii lañ ko séddale woon Seydina Adama la suñu borom wàcce woon ci moom téeméeri téere wàcce wàcc Seydina Siisa juróom fukki téere wàccee ci Seydina Idrissa fanweeri téere wàccee ci Seydina Ibrahima fukki téere téeméeri daal mat ñeent yi nga xam ne da ko war a gëm gëmu teqantal nag mooy tawreet ak injil ak saboor ak ak alquran tawreet mu ne Seydina Moussa lañ ko joxoon injil Seydina Aïcha lañ ko joxoon mooy li ñu gën a miine léegi bible eh, saboor Seydina Daawuda lañ ko joxoon Euh, euh, alquran moom lañ wàccee ci sayyidina Muhammad euh, ni mu ko baaxoo mooy heure bu tuddee yonente yi daal di julli ñaan ci suñ maanaam julli ñaan suñ borom julli ci ñoom mooy ñaan suñ borom dolli ci ñoom xeewal ak mucc waaw ah, mu ne yàlla na suñ borom def ci ñoom salaatu wasalaam li fi yegg suñ borom a ngi leen di bëgg ñoom yonente yooyu suñ borom mi nga xam ne moo set wicci moo mucc ci lépp luy wañe ak ak ak wàññiku ci ci boppam ba pare di joxe jàmm yit kon foofu la ñu yem ak yéen eh, ba beneen yoon yaa rabbi jaxalil muridina maa fi isnikal asina wasamlaj maa beneen yoon incha allah bu ñu ñëwaatee daal di ñëwaat ci yéen ak yeneen ñetti poñ yi nga xam ne ñoo des ci imaan yaa rabbi jaxalil muridina maa fi isnikal asina wasamlaj maa ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp eh, di sant Sëñ Abdou Xaadir mi nga xam ne moo jiite cellule communication bi ci euh, ci ci télé bi nekk ci biir jumaa ji ñu koy ànd ak yéen toujours ci seen daar ji nekk ci biir jumaa ji daarul maarif al islamiya di nekk ak yéen ba tey ci seen téere yi nga xam ne dañ ko tàmbalee ak ci mu ci suuf gi ni ñu koy àndeek suñu gëneen kilifa muy tàmbalee ak yéen ci téere yi nga xam ne moo féete kaw waaw jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم